Khadijatou Diallo inspectrice d'académie de Thiès tey dañ doon def euh, li ñuy wax tournée de rentrée bi nga xam ne gouverneur moo ko daan jiite chaque année ñu def ko dem wër ay yenn école pour xool ndax xale yi ñëw nañ ndax ñaari fan ci ginnaaw jàngalekat yi ñoo waroon ubbi ñoom ñu ubbi tey nag di bës bi am solo trop ci suñu système éducatif bi mooy ubbi te ubbi njàng xale yi Euh, ci délégation bi ñu àndaloon ak bi bi gunge gouverneur euh, am na le coordonnateur du dialogue social am na euh, le représentant de la COSIDEP am na le représentant des syndicats les parents d'élèves am na tamit yeneen membres de la communauté yoo xam ne ñëw nañ ànd ak ñun pour pour pour ñu wër seet xale eh, ndax xale yi ñëw nañu presse bi tamit àndoon nañ ci li ñu def mooy dem ci yenn écoles yi euh, collège yi ñu njëkk a dem am na ci ay classes yoo xam ne euh, boo xaajee eh, effectif bi ñi nga xam ne ñëpp élèves yi seen nombre ñoom ñëpp euh, ay peut-être quart bi lay doon bu dee téeméer ñaar fukki yeeg juróom ñoo ñëw am na ci ay yoo xam ne bu dee téeméer juróom fukk yi ñoo ñëw am na ci yoo xam ne ci benn école privée euh, téeméer bu nekk juróom ñeent fukk yi ak juróom ñett presque 100 pour cent yi ñëw nañu dem nañ tamit ci yenn école yoo xam ne ne euh, lépp mat na euh, affiche emplois du temps yi jàngalekat yi ñëw nañ waaye xale yi ñoo ñëwul parce que tout simplement peut-être ñoom Euh, li leen di téye mooy inscription yi waaye monsieur le ministre de l'éducation nationale waxoon na fi eh, def na ni léegi ñaari at nee na loolu waratul nekk facteur boo xam ne ne dina tax xale bi bañu ñëw xale bi mën na ñëw commencer tàmbale léegi eh, waajur yi ak administration bi ñu xool nan la mën a fayee ndànk-ndànk droit d'inscription yi yoo xam ne day varier entre huit mille ba dix mille francs mu xool nan la koy mën a fayee xam nga kon loolu warul ma tere xale yi ñëw li ci des rek moom mooy gën a waxtaan ak euh, parents d'élèves yi euh, nga xam ne ne xale bi bu amee benn kaye mu am benn bic jàngalekat bi ñëw xale bi ñëw teew ci journée bi dina am lu ñu def loo xam ne lu am solo lay doon ndax dootuñ ci delluwaat mukk te def leen di tax ñu gagner temps te nga xam ne ne bu dee révision la sax baax na nga xam ne ne bu ñu continuer ci biir semaine bi rek yëpp jaar yoon ñu tàmbali nag véritablement njàngale bi donc lu am solo la euh, xool nañ am na fu euh, ubbi tey jàng tey la ñu bëggoon waaye tamit ubbi tey jàng ba école tëj te loolu Euh, ministre bi am na euh, ay série de rencontres yoo xam ne ne daf ko organiser woon euh, IA yi IEF yi direction nationale yi d'abord pour xool lan moo doon sooxee si système bi lan moo di problème yu nga xam ne yu gën a jàmp ñu ne lan mooy solution bi mooy lii li nga xam ne ci ñun ci suñu wàll la ku nekk ak sa wàll sa pàcc nga jël ko léegi war cee bàyyi sa xel bu baax a baax a baax loo war a def nga def ko Euh, jàmm am ci biir espace scolaire bi ci biir euh, kuréel jàngalekat jàngale bi. dañu bi am na solo mhm. Mhm. Mhm. Euh, waaw. Mm-hmm. waaw abri provisoire yi bare nañ mais boo seetee mu ngi wàññeeku bu baax a baax keroog ministre bi wax na ko ci télé bi abri yi bare woon nañ bare boo xam ne mais léegi boo ko seetee motutul 6000 te ñu ngi koy jeexal ñu ngi koy région de Thiès moom mu ngi fi de xaw na bare de waaye nag ñu ngi ci de ndax ñu ngi tabax ah loolu motu ko mukk ci àddina motul loolu li ñu xam daal mooy ñu ngi tabax yéen gis ngeen ne fi mu ne nii état bi mu ngi tabax ñun ren rek euh, daaw rek tabax nañu juróom-ñetti école complète waxuma la ay classe de juróom-ñetti école fii ci région ci département de Tivaouane tabax fa ay BST BST bi ñu koy réhabilité yooyu yëpp ay xale ñoo ciy dem di jàngi abri provisoire yi nag dañoo bare woon parce que dañ doon def euh, enseignement de proximité ndax xale yi dañ doon bañ lu yoon yu gudd yu ñu daan def ay kilomètres pour dem jàngi ñu ñu dindi ko defal leen ay abri provisoire accompagner nag pour tabax tabaxal leen loolu nag moo yéex moo tax abri yi bare waaye état bi mu ngi siy def ay jéego yu bare mu ngi wàññeeku bu baax mais tamit bu leen fàtte ne xale yi dañuy gën di sakkan donc état bi li muy def il faut que am ñu ci jàpp te comme école bi nga wax noonu école mu Moundiaye Thiaw euh, benn doomu réew mi te nga xam ne foofu la soxee ko moom moo ko defal monsieur Baratal defar école bi ba nga xam ne école bu mucc ayib école boo xam ne mën nañu wax ne ci Sénégal ah doo ci gis yu bare yu mel noonu de ndax ñun xool nañu matériel bu baax la xa école bi def ko réhabilité wu ko sax def ko tabaxaat loolu am solo la dina am ñoo xam ne mën nañu jàpp ci nii walla ci naa jàppale état bi. donc ba abri provisoire yooyu noonu ñuy wax ñu ñu ñu ñu jeex fii ci Thiès nag ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax ndax am na ay même fii nii rek fayu bii bu dem tey ci collège bi ñu fa defar euh, dinañ ko inaugurer ci fan yi di ñëw rek boo xam ne euh, de ay bailleurs ñooñu jàppale allemand yi defar école boo xam ne éducation inclusive lañ fay def tous les types de handicap handicap yëpp mën nañ fa dem jàngi xale gumba yi mën nañ fa jàngee ji ñi am handicap moteur mën nañ fa jàngee donc euh, école boo xam ne ne vraiment bu ñu demee ba yegg ci dinañ xam ne ne du état bi rek bàyyeewuñ ko ko et euh, nit ñaa ngi liggéey pour que xale yi gën a mën di jàng ci condition yu ak gën a acceptable hmm? waaw xanaa liñ leen jox noonu ñu jox leen ko mu nekk vraiment euh, ni ma ko waxee sànq école bu mucc ayib d'abord Euh, ñu téye ko téye fukki loxo téye ko fukki loxo mooy ñu bañ a yàq matériel bi ñu leen jox école bi boo ko gisee rek nga xam ne amul Sénégal walla barewul de dañ ko téye defar ko euh, bañ a yàq matériel bi mais li ci gën a am solo mooy ñoom xam nañ condition yi ñu nekkoon daaw yu metti gis nañ li fa nekkoon ñu gis li fi nekk tey loolu nag ci résultat yi bu école di tëj lañ koy natt loolu ñu defar loolu muse Baratal def noonu jox leen condition yu baax pour jàng ak condition yu baax pour jàngale war naa nekk élèves yi ñu am ci ris bu ëpp bi ñu daan am euh, xale yi yu bare sax daawuñ fa nangoo ñëw wala bu ñëwee duñ daan jàng jàng nu mu waree jàngalekat yi conditions yu métti donc résultat yi mu mënoon nañu bañ a baax mais ren te loolu mooy contrat bi mooy que résultat xale yi dafa war a gën li fi daan am te environnement scolaire boo koy defar du pour rafetal rek de c'est pour que résultat xale yi gën a baax ndax ñun loolu moo ñu tax a jóg lépp lu ñuy daw lu ñuy def ku ñëw defar benn birig walla nga ñëw defar benn duus pour xale yi gën a mën a jàng la donc ku ci mën jàpp nga ñëw jàpp jàppale état bi ndax métti na besoin yi bari nañ euh, yëf yi euh, dafa yaatu donc ku ci mën a jàpp jàpp si ndax xam nañ ne environnement scolaire ku ko defar rek Euh, pour que xale yi gën a mën a jàng pour que xale yi gën a mën a réussir ci seen jàng merci